قرنا من نوره نيل من الله من الواد قرنا من نوره نيل من الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عن كبريت الأحمر شمس الولاية الكبرى منبع الأسرار والعرفان شيخ التجاني قطب الرباني بحر البحور شمس عيالي سقانا الله من فيضه بأعظم الكؤوس والأوان وأسكننا معه بدار التهان آمين يا رب العالمين ورضا الله الحالس عن مولانا وأستاذنا وملاذنا cheikh Seydi El Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu wa baadu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax nu koy defee saa su ne ndax nag sallallahu alayhi wa moo nu jàngaloon ni man badaa bil kalaami qabla salaami fala tujibuhu képp ku tàmbale ñëw rek ratatati commencé wax ay waxam te nuyuwu leen bu leen ko faale bu leen ko tontu kon nag assalaamu qabla kalaam nit bala ngay wax del nuyoo te nag dafa waxoon ni laa yadxulul jannata laa tadxulul jannata xatta tuuminu mu ni kenn ci ëllëg du mën a dugg aljanna lu dul da a doon ay julit xaqan waaw ni ko waa lu ñuy xamee ne ay julit lañ mu ne walantu tuuminu hatta tahabu pour ngeen doon ay jullit dëgg-dëgg faaw ngeen soppante bëggante te yàlla tax waaw ko waa sang bi men dañ ko laat naka la ñuy def ba bëggante mu ne awala adullukum ala shay'in ida faaltumuhu tahababtum ndax duma leen tegtalee baaxee leen sax benn mbir boo xam ne su ngeen ko defee rek bëggante ñu ne ko ala bala ya rasulallah ah kay mu ne afsu salaama baynakum dee leen siiwal jàmm seen diggante te jàmm jooju mooy lan asalaamualeykum du nuyoo waaw waaye te bañ nag niñ koy defee salaamaaleykum walla jaafuwaay wala bégee loolu kenn xamul nu mu doon julit asalaamualeykum la ñu xam nga ñaanal nit ki jàmm kon jàmm jooju lay ñaanal képp koo xam ne yaa ngi toog sa saal di nu seetaan di nu déglu tabaarakallahu ci sunu àlluwe gu gàtt waaye ni ñu koy baaxoo def saa su ne dañ ciy jiital sunu sëriñ sunu xalifa sunu wayjur Cheikh Seydi Aboubacar Sy ibnu Cheikh Alhaaji Mouhamadul Mansour waaye noonu la nuyoo ay rakkam Cheikh Alhaaji Malick Sy Abdul Aziz tabarakallahu ak sëriñ Babacar Sy Abdul Aziz jàmbar jooju ñaanal ko yàlla eh, daara maamam ji mu yor yàlla defal ko si jàmm ak sutura sam mboolem nuyu mboolem njaboot Seydi Alhaaji Malick waaye nuyu mboolem kilifa diine yi nga xam ni ñoo ŋànk turuq yi nekk Sénégal ak Afrique li ko wër moo xam murit moo xam layen canaba ñaseen tabarakallahu xaadir ak fu kilifa diine nekk rek ñu ngi lay nuyu di la ziyaara bu baax a baax ndax nag sunu sëriñ tabarakallahu eh, Cheikh Mouhamadul Hadi Touré loolu la waxoon waaw bul xas waliyu bu koy gaaral bu koy doyadal ndax waayu yàlla la mu sànni law sànn fonkal gëmal wegal màggalal teralal mboolem wali yu ndax li yàlla ko santaane yàlla ni nag man aadaani waliyan faqad aadantu bil xawl képp ku noonoo sama benn collaborateur man yàlla ma déclaré la guerre yàlla nag bu nu bokk ci ñu muy déclaré guerre tabarakallahu ah, dellusiwaat na nag yéen ci seen émission bii di al axdari su ngeen bàyyi xel ñaari émission yi weesu ñu ngi doon jàngale tabarakallahu ci wàllum tiim waaw ci wàllu tiim xam nga waxoon naa la fii ne la téere bi chronologie lay doxe maanaam étape par étape lay doxeek yow waaw xoolal la mu tàmbaleeg yow ca muqaddima ba ah? mu jóge fa wax la nu ni eh, tabarakallahu a tahaara jàngal la laab naka nanuy laabee mu jóge fa gannaaw xam nga nu nuy laabee kaay mu wax la ban ndox la nuy laabee mu ne la gannaaw jàngal naa lu ñuy laabee jàngal la xeetu sobay am jàngal naa la ndox mi ñu war a laabee kaay ma wax la nu ñuy jàppoo ak luy waral jàpp ak li koy yàq nga jàpp ba pare mu ni kaay léeg-léeg nag balaa ngaa jàpp bu fekkee danga nga amee toj mu mag di nga sangu mu jàngal la sangu set ak lu koy waral ak lu koy yàq jàngal la jàpp mu ngi la bëgg a wax ni nit dinga làpp ci sangu set moo tax mu njëkk laa jàngal sangu set dinga nga ci njàpp bu dee toj mu ndaw la mu jàngal la ko dog laa jàngal tiim kon mi ngi la bëgg a wax ni tiim mooy dernière état bu laab waaw bu dee toj mu mag dinga nga sangu toj mu ndaw di nga jàpp boo amee ngantal ñaar yépp nag mun la dinga tiim mi ngi la bëgg a wax ni jaamu yàlla du wa julli du wàcc doomu aadama bi fekk mi ngi ak xelam fekk mi ngi ak ruuxam waaw kon mu sangoo set jàppoo tiim julli gis nga nim la ko toftalee jàngal na la laabi jàngal la sobe yi am jàngal la ndox mi nga war a laabee jàngal la sangu set ak la koy waral ndax moo jiitu mu jàngal la jàpp léegi ñëw ak yow ci tiim mu ngi la bëgg a wax ni faw nga laab ci jàpp sangu set bu fekkee toj mu mag su dul loolu nga laab ci njàpp bu dee toj mu ndaw bu fekkee am nga ngàntal sangu set am nga ngàntal njàpp faa déedéet julli du la wàcc de kaay nga tiim la ilaha illallah yàlla yàlla fawul fawuluwul kaay nga tiim nga ne ko damay ñëw nag tiim na mu ni déedéet kaay ma wax la kan moo war a tiim wax la yan circonstance la ñu tiimee wax la ki tiim kaay ma wax la jumtukaay yi ñu war a tiimee kaay ma wax la faratay tiim ya ah, wax naa la ko wax la jumtukaay yi ñu war a tiimee wax la yi ñu warta tiimee léegi nag kaay ma baaxee la sunna yi moom la la war a jàngal tey moo tax mu ni la wa sunanuhu sunnay tiim nag tajdiidu saidi mooy beesal bi ngay beesal sa loxo dóor ba nga koy dóor ca suuf sa ca pàkk ba ñaareelu dóor ba nga ko cay dóor nee na sunna la ngir lan li ya day ngir masaa say ñaari loxo est-ce que déggees na ma nañ dellu ginnaaw ba mu lay jàngal farata yi lan la waxoon wa darbatu lardu luula dóor bu njëkk bi ngay dóor sa loxo ni ko rëpp ci suuf si dóorin bu njëkk boobu mu ni farata la nga ñëw ci sunna yi mu ni la wa tajdiidu saidi waaw wa tajdiidu saidi lala la bëgg a jàngal tajdiidu saidi lam ca nam may lan darbatul ardu saani loolu la bëgg a wax bu njëkk ba ca farata ya mu ni la darbati lardul ula mooy farata nga ñëw ci sunna yi mu ni la tajdiidu saidi beesal pàkk bi lam ci nam mooy lan ad darbatul ard saani maanaam ñaareelu yoon bi ngay duur sa loxo ci suuf si nee na loolu sunna la ngir lan li yadayhi ñeel ngir masaa say ñaari loxo waaw parce que dóorin bu njëkk bi ci ngay masaa sa xar kanam su la neexoon nga àggale loxo yi léegi ñaareelu dóor boobu nag doo ci masaa waat sa kanam sa loxo nga ciy masaa moo tax mun la li ya day ñeel ñaari loxo yi wa masxu ak masaa lan maa la nga xam ni bàyyi na moo nekk ci digganteel ku ay ni takku yi wal mirfaqay ni ak conc ba moom mooy ziraa lii xasab bi masaa bi ngay masaa diggante poignée bi ba ca conc ya maanaam distance bi mu ne masaa bi nga koy massa ci ñaareelu dóor bi noonu nee na sunna la waaw sunna la diggante bii tekku jaray ba ci conc bi nee masaa bi nga koy masaa sunna la boo demoon sa njàpp farata la nga ñëw ci tiim mu ni la sunna la masaa sa loxo raxas sa loxo ba ci tikku jaree fii boo demee ca njàpp sunna la nga ñëw ci tiim mu ni la farata la kon contraire bi la waaw kon sunna yi bi ci njëkk mooy taj tajdiidu said beesal dóor bi ngay dóor sa loxo ci pàkk bi ñaareelu dóor boobu sunna la li ya day ngir masaa ñaari loxo yi waaw ngir masaa ñaari loxo yi ñaareelu dóor boobu parce que dóorin bu njëkk bi ca nga masaay woon sa kanam kon ñaareel dóor bi doo ci masaawaat sa kanam pour loxo yi la mu ne ñaareelu yoon boobu ngay dóor sa loxo ci suuf si di masaa say loxo nee na sunna la mu ni ak masaa li nekk te diggante tikku jara bi ak sa conc bi wa masxu ak masaa maa baynal kuayni li nekk ci diggante takku jara bi wal mirfaqayni ak ñaari conc yi muy distance bii nee na masaa boobu nga koy masaa sunna la contrairement bu doon jàpp farata la ak ban wa tartiibu ak toftale ko toftale tiim gi nee na loolu tamit sunna la dóor xar kanam loxo noonu nga koy toftalee noonu nee na sunna la xam nga ku yàgg gis euh, sunu sëriñ sunu wayjur sëriñ Babacar Sy Abdou Aziz yàgg na koo jàngale ci tànt yi waaw yàgg na koo jàngale ci tànt yi day gis koo xam ni day tiim ñëw rek dóor allahu akbar commencé julli déedéet waaw kon dafa am yoon déjà balaa dara yow mi tiim balaa dara mboolem accessoire boo takkoon da koy tekki mboolem accessoire boo takkoon da nga koy tekki jaaro bii day dañ montur bii ma takk dafay deñ mbooleem loo takkoon muy accessoire da nga koy dindi danga koy dindi soo paree nga jël sa ñaari loxo yi nii ñu ko sësalee nii nga ne ko rëpp ci suuf si dóor wax ñu la dóor bu baax bay gaañ sa bopp wala bu fekkoon am na lu la cay jam di la jam ci loxo déedéet ñëw rek teg sa loxo yi boo ko tegee ba tegg nga def nii bu fekkee am na lu la cay jam ñu ne nanga ko fëggale nii ndànk ba lépp loo xam ni salte la wala lu lay gaañ lu ca nekkoon mu wadd soo paree nga masaa sa xar kanam xam ne mi ngi la doon wax ne xar kanam guddaay la ak yaatuwaay guddaay bi fi karaw li baaxoo sax ba ci suuf sikkim bi yaatuwaay bi mi ngi ñëw ci ñaari keru nopp yi nga teg sa loxo ci kaw massa gisoo fii karaw li sax nii nga massa ko ñëw ba ci catu nopp bi suufu sikkim bi ñëwaat ci catu nopp bi fii bu fekkee sa bët yi dafa xóot nga xool diggante bëti ci biir nga dugal sa baaraam yi suufu bakkan bi bu fekkee sa tuñ yi dafay lemu nga lem marti ko gis nga fépp foo xam ne dafa am noox noox rek nga dugal fa sa baaraam masaa ko parce que suuf la bokkul ak ndox waaw suuf la bokkul ak ndox kon foofu yëpp danga koy masaa soo paree ci kanam gi ñu la ñaareelu dóor bi sunna la nga jëlaat sa loxo tegaat boo tegee fëgg boo fëggee loxo ndeyjoor bi ngay njëkk a def moo tax boo xoolee nee na wa fadailuhu ngëneelu tiim yi at tasmiyatu mooy wax bismillah kon balaa ngaa commencé tiim waxal bismillahi rahmaani rahim boo waxee bismillahi rahmaani rahim bokk na ci ngëneeli wa taqdimul yumna ala al yusra ngay jiital toujours sa ndeyjoor mujjee sa càmmoñ parce que l'islam dañu bëgg ngay tàmbalee ndeyjoor jëm càmmoñ waaw tey même bu ma fekkoon jotaayu nit ñu toog l'islam nee na booy nuyoo commencé ndeyjoor donte ki fa nekk moo gën a nekk xale commencé la ndeyjoor wër jëm càmmoñ boo ñëwee ci bërëb tamit di séddale lu ci mel ni ci daayira yi ngay séddale commencé la ndeyjoor jëm càmmoñ bu tëb kenn mu ne bokk na ci ngënee li aussi wa taqdimu ak jiital zahir ziraai bitib xasab ba xasab bi mooy lii diggante ciku jara bi ba conc bi mooy xasab kon biti bi mooy ci ginnaaw nga jiital biti bi mooy zahir bi doog a mujjee biir bi muy baatin bi waaw par exemple wa taqdimu ak jiital zahiri ziraai bitib xasab loxo bi ala baatinihi ci biiram bokk na ci ngëneeli wa muqaddamihi nga jiital la war a jiitu ala muwaqirihi teg ca la war a mujjee mooy lan boo commencé ci kaw commencé catu baaraam bi ñëw ba ci conc bi booy wàññeeku nga commencé ci conc bi dem ci baaraam bi kon jiitalal la war a jiitu mujjee la war a mujje léegi teg nga dóor bu njëkk bi ba masaa sa xar kanam ba pare nga tegaat sa loxo ci suuf dóor ndànk ba lépp lu lay gaañ walla lu ciy tilim tilim mu deñ nii ngay def afwan ngeen baal ma boo defee nii teg nga ba pare nga jël sa ba loxo yi nii lii ngay jël ci ginnaaw nga teg ko fii gis nga baaraam bu mag bi moom laalut laalut boo tegee fii baaraam bi loxo bi mooy déplacé wu wàcc wàcc gis nga de wàcc wàcc wàcc ba ci ginnaaw conc bi doo ko teggi léegi loxo ndeyjoor bi ngay wëlbati nii soo ko wëlbatee gis nga baaraam bu mag bi toujours moom ci ginnaaw la nekk nga ñëwaat ñëwaat ñëwaat boo ñëwee ba fii nag baaraam bu mag bi ngay doog ci lay doog liggéey xola diggante baaraam yi gis nga masaa diggante baaraam yi diggante baaraam yi ba mu jeex nga jël loxo bi nga def la même chose ma jëlaat loxo bi teg ko fii ma wàcc ma wàcc ma wàcc ba fii ma turne ko gis nga ñu dem ñu dem ñu dem su ma demee ba yegg si fii ma jëlaat diggante baaraam yi gis nga gis nga jeex na allahu akbar nga julli waaye pas nuñ koy defee léegi allahu akbar déedéet mbokk yi jaamu yàlla yombut te wax naa leen ko man leen yàlla foowul te it foowluwut waaw tiim nag gaa yi dañu dégg tuur bi rek yaakaar ni yomb na dangay ñëw defee ko nu la neex daal dem julli ji déedéet kon mi ngi noonu nee sunnay tiimi ba ci njëkk mooy ñaareelu yoon bi ngay dóor sa loxo ci suuf di beesal pàkk bi ngir masaa say ñaari loxo ak masaa lu nekk ci diggante tekku jara bi ba ci conc bi wat tartibu ak toftale waaw mu ni wa fadailuhu ngënee li tiim yi nag at tasmiyatu mooy wax bismillah balaa nga tàmbale waaw kullu amrin zi balin lam yubda bi bismillah fa huwa aqta ay fa huwa abtar ay naaqisul baraka waaw bu ci topp ci ngënee ni wa taqdimu jiital alyumna ndeyjoor al yusra ci càmmoñ wa taqdimu ak jiital zahiri zahiri ziraai bitib xasab ba ala batin yi ci biiram wa muqaddami wa muqaddamihi jiital la war a jiitu ala muwaqihi ci kaw la war a mujjee mooy bu lu war a jiitu bu dee ginnaaw zahiru ziraa bi ngay masa baaraam yi ci kaw moo war a jiitu wàcc ba ci conc bi bu dee booy demaat conc be war a jiitu mujje baaraam yi kon jiitalal li war a jiitu mujjee li war a mujjee tabarakallahu kon loolu mooy li nga xamante ni euh, mooy ngëneelu tiim ak li nga xamante ni mooy sunnay tiim yi kon tabaarakal dañuy taag foofu sunu baaraam euh, incha allahu rabbi ba beneen altine bu nu ñëwee nag daal di dugg ak yéen ci yi nga xam ni nag mooy yàq tiim waaw dugg ak yéen ci yi nga xam ne dafay yàq tiim bu ñu génneek yéen nag ci liy yàq tiim ah ñi doog a dugg nag ci dars bu am solo boo xam ni quatre-vingt ba quatre-vingt-dix pour cent jigéen ñee moom de dama waaw quatre-vingt-dix-neuf pour cent sax mën naan jigéen ñee moom muy wàllu deretu règle donte góor ñi am nañ ci part ndax góor gu nekk war nga koo xam ngir soo amee soxna bu amee lu ko ci lënt euh, gàgganteem nag yow la war waaw gàgganteem la wala war bu boobaa buñ ci yeggee danañ leen wax kañ la jigéen di commencé gis mbaax ban âge lay toll di commencé gis mbaax bu gisee mbaax lan moo ko ca war bu cycle menstruel am changé soppeeku deret bi soppeeku lan la ko ca war bu ñëwee tey arrêté ñëwaat suba arrêté ñëwaat ginnaaw suba lana ko ca war bu toogee weer wala deux mois gisu ko lan moo ko ca war yooyu yëpp dinañ leen ko leeralal ba mu leer nañ ba jigéen gu ci daan am problème ci wàllu mbaaxam bis bu ñu noppee ak yow ci darsi bi incha allahu rabi ci mbaax yàlla kàttanam euh, mën naa ni dara dootu la réer ci sa wàllu règle kon nag ñu ngi leen di jox dig dog daje ci altine yii di ñëw incha allahu ci seen chaîne bii ngeen taamu di Thiam Sono TV ñuy nuyu ak di ziyaar mboolem soppe yi nga xamante ni ñu ngi ñu topp dañu ñu di ñu seetaan tabarakallahu ñu nuyuwaat ñëpp nuyu suñu sëriñ euh, Oustaz Sidi Ahmed mbay ci tabarakallahu firi nuuniya bu am solo boobu Seydina Mouhamed Diaw l'ambassadeur moom ñu nuyu ko waaye ak mboolem émission yi nga xam ne ñu ngi koy waajal ci tele bi ndokkeel Oustaz Mouhamed Diouf émission yi am solo yi nga xam ne mi ngi ko doon def ci kool gi waaye moom it fii ak ay fan yu néew incha allahu rabbi di ngeen ko gis ci biir chaîne bi mu ndil leen émission bu am solo di jàngale ci jikko yi euh, yonent yàlla Muhammad suma juumul tabarakallahu waaye nuyu borom sela bii di euh, Mouhamadul Mansour moom it ñaanal ko yàlla borom deux galons yi tabarakallahu euh, léegi dafa dugg cour des grands macha allahu nuyu première daam ajaratu soxo mu baax moom nga xam ni sunu jigéen sunu xarit sunu lépp ñaanal ko yàlla sàmm ko sàmm njabootam waaye nuyu nag deuxième dame tabarakallahu soxna Ramatulaay Mariama tabarakallahu sayyidatuna Maryam ñu nuyu ko moom it ziar ko bu baax a baax ñaanal leen yàlla sàmm leen yàlla dëppale seen xolite boole leen ak seen borom kër musal leen leen ci lépp loo xam ni ay la wala yàqkat yi wala ñi nga xam ni bëgguñu jàmm yàlla yàlla leen jàmm defal ñu jàmm yàlla yàlla defal seeni mbir defal suñuy mbir te def suñu poos dara wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu